jaay conteneur ci wàllu football nga xam ne daanaka mbirum Mbappé ak Haaland ma ngay sensé ci club bii di Real Madrid bu ngeen di toppee di ngeen ci xam lu leer lu ngeen ci mosu woon a xam ma leen bëgg leen bu baax a baax def leen seen i abonnement yow mi ko def ba pare gërëm naa la sant naa la yow mi ko defagul mën nga koo coppati ndànk ñu jublu ci xibaar yi dëgg ma nga noonee gone Real Madrid fi mu daanaka wàllu football ci logique ak li nga xam ne mooy règlement may na ab kat bu fekkente ni juróom-benn weer séngam daf koo defee ci contrat am te juróom-benn weer yooye nag fekkul mu waxaalewaat beneen contrat ak club bi nga xam ne moom la ne beneen club mën naa joxe gu fële ca lang ja daal di ñëw daw di ko waxaale wala muy wax ak moom te ju ci am benn a problème ci fair play financier wala mu am ci benn jafe-jafe loolee da Real Madrid ci digganteem ak Mbappé ndax ba fii may wax ak yow Mbappé yokkulub Paris Saint-Germain ah, kon fi mu toll nii yor na cëggal gu yem fii ak ah, juróom-benn weer sëngam dootul siq ak dara Paris Saint-Germain moo tax Real Madrid nag droof ab galgal boo xam ne le premier janvier la war a tàbbi galgal boobee nag Real Madrid ànd na ci fulla fayda Mbappé suñ la roofalee ab galgal ak contrat biñ la tegal ci taabal ji sooru tontuwul fii ak fukki fan ak juróom yi ci topp Real Madrid man ca njombaxtalu kii nga xam ni moo nekk Erling Haaland eh, di football fële ci Angleterre ah, ca mooy deuxième choix bi ma jàppoon ne na Real nag ñaar ñoom ñëpp bu leen amoon bu boobaa dana cuqur mbuut ci moom bu baax a baax waaye nag ni mi ngi suivre ñaari piste yëpp piste bi ko gën a soxal nag ci gàttal mooy piste bi nga xam ni mooy bu Kylian Mbappé Real ak mbappe daanaka fintoon nii ñaan ñu bëggante leen di gone yoo xam ne kenn ko ci ne yaa ngi xooy sa morom waaye nag ca njobbaxtal ba premier janvier danañu diglu balaa boobee tamit danañ leen toppal information bi lépp luñ ci man di am danañ leen ko tegal ci table ji bu ko defee ngeen mën ko jariñoo xam ci lu ngeen xamul woon lépp nag ngir information yoo xam ne dañ koy gëstu gëstuwaat ko ba yéen ñi ngeen koy jox buñ leen ko yakkalee mu nekk ceebu jën boo xam ne daanaka bu weex tàll lay doon ànd ak suul gars yi gërëm naa leen partagé leen vidéo yi aimé li nga xam ne mooy suñuy euh, vidéo ndax loolee dana tax mu gën gën a baax ci liggéey bi nga xam ni dañ koy def ngir rek yéen ñi nga xam ni yéena a topp ànd bi am na solo ànd beeg El Hadj yàlla na jëm kanam jërë ngeen jëf